Assalamu asalaamaaleykum mbok internet du Safo Dakar instant mbég ceeg bànneex la am di jàkkaarloog yéen saa su ne donc euh, ñu tambali tay sen première numéro euh, sen émission entretien donc entretien buñ ko waxee képp ko xamante ne nga waaye itam un expert daf ñuy neex lool ah ba tax na dañuy sawar lool aju tok ak yow nga baaxee ñu ah, li fi xawon démb ak li fi xewon tay donc dañ koy doole nga xamante modi suñu papa Moussa ñi nga ne Moussa Gningue ah bañ na ko ba dañ ko daan dàqantelee le sorcier de face donc mu nekkoon ak kàngam un expert def lu am solo ci wàllu làmb tey Dakar Instant moom la dalal fi nga xamante ni moo di Fass Papa Moussa a bàyyi la nga nuyoog waa Dakar Instant. waaw ah, jërëjëf waa Dakar Instant. Mhm. maa leen di nuyu di leen gërëm. Mhm. te di leen wan ne sama kontaan trop ngeen ma fekk. Mhm. pour euh, jël ma ñu ñu waxtaan.

ku la ci wax leneen loo xam ne leneen te ñu xeex rek mm-hmm. loolu dañuy xeex dañuy xeex mm-hmm. parce que lu tax tax ñu xeex bi mm-hmm. parce que euh, Eumeu Sène su euh, su entamé xeex bi mun naa yegg Modou Lo fu ko neexul euh, Modou mun na tam waa ji di ko sàcc mu mu mu mu jàpp Eumeu Sène fu ko fu ko fu ko neexul donc ñoom ñëpp seen stratégie benn la donc li li ci nek rek moy il faut que ñu ñu ñu discipliner sen engagement xol li ñuy def xam li ñuy def ba moment ba au moment opportun nga xamné euh kenn day gis euh, yoon pour pour pour mën dem sa tànk macha mu nek euh, un expert way itam mekk kàngam def ak jangat bu am solo ci combat entre Bogna numéro 2 ak Lac de numéro 2 way aussi mu def ab jangat bu am solo ci le combat du 28 juillet entre Modulo et Eumeu Sène ci biir euh, entretien à travers à Dakar Instant euh, papa ki nga xamanteni mo fi nekkoon l'ancien roi des arènes du balagué dafa bëree donc mu daal ba mu daanee ba légui amul li nga xamanteni ne adversaire est-ce que lolu baax na ci mbër waaw loolu loolu loolu loolu wàññiwul dara ci mbër. Mhm. doo koy permettre pour mu pour mu pour mu récupérer. Mhm. pour euh, amaat mhm. ah calcul. pour mën a bëreeg si ñaar ñi nga xam ne fi mu nekk ñooy bëri le 28. ku ci daan rek dinañu bëri. parce que yaa ngi dégg ñu wax ama seen nee na du bëreeg du doy moom. loolu wax rek su ko ci gisee lu ko jaral rek. dafay dem dafay dem bëri. est-ce jamono daan am nga bëri ngeen daan la ngeen bëriwaat. waaye nit ñi mbër ñoom Robert dañ daan bëree bëree ak ñoom Mbaye Guèye quatre fois cinq fois ah six fois maam góor gi bëri na ak euh, euh, Robert ñeenti yoon. Mhm. ah te ñooñu euh, mbër mbër gën a ëpp leen ëpp woon doole. Mhm. donc ci biir loolu mooy mbër dina ne dina ne du ma bëri diw mhm. mais si circonstance bi su ñëwee rek. nga dem bëri jéeg moom.